assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Mahmoudan Mbacké moom Sëriñ Basiru Antañang moo del siwaat ak yéen ci seen jataay bi ñuy wax almajlisu suura te jataay bi di am bis bu nekk bu ñetti waxtu ak genn wàll jote ci seen rajo bi di rajo Xassida Online di waxtaan ak yéen di sottante ay xalaat ci li nga xamante ne noo moom noo ko bokk gis-gis bi ñu ci am ak gis-gis bi ngeen ci am mu nekk waxtaan woo xamante ne waxtaanu taalu bi rek lay doon kenn ku ci nekk ci ñun génn ci ay xalaatam ñu seet lanu ci amal njariñ ñu tënk ko te jëfandikoo ko kon ñu ngi nuyu mboolem auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel seen liggéey bii di rajo Xassida Online ak Touba Monde bi TV di nuyu ñu ko seqal ñëpp di siyaare mbokki taalibe yëpp rawatina sëriñ Modou Mbaye Thiam mi nga xamante ne mi ngi ci machine bi di ko sant ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ne moom la am te bëgg rek message yi sëriñ bi di jàll waxtu wu nekk ndax message yi nga xamante ne sëriñ Touba dañu ko bàyyeel lépp njariñ la su ci taalibe yi jotee rek ñépp man koo jariñoo kon barakallahu yal na yàlla barkeel di ndokkeel ñéppit di baalu ñépp àqit ni nu koy tàmbalee waxtu wi yépp ci jamono yi tes yi nga xamante ne am na ci àdduna muy balaa bi nga xamante ne sunu boroom wàcc na ko wàcce na ko ñoo ngi ndokkeel ñépp di ñaan yàlla sunu boroom mu teggil nu ko ci bu gaaw ndax ni nu koy waxe moom rek moo ko mën a teggi moom rek moo ko mën a saafara kon yàlla nu ko teggil te fëgg buntu mbooleem boppam yépp ba kenn ku ci nekk ubbeeku fa nga nekkit mu saafaral la ko ba nga mën a dellu ci say njaboot waaye ba nga mën dellu ci say itte di wax rek ne seen thème bi tey ngeen di ci ànd ak seen mbokkum taalube Mahmoudan Mbacke mu Serigne Bassirou Anta Niang ni mu ko waxee rek di nuyu auditeurs yi nga xamante ne ñi ngi ci rajo bi yépp Serigne ma Pape Makhtar ñoom Serigne Pape Demba ñoom Serigne Mourtada Gueye ñoom Serigne Ablaye ñoom Serigne Ibrahima Ndiaye ñoom ak mboolem ñi nekk ci biir liggéey bi yépp sëriñ Moustapha Mbaye Sam waaye fële ci Angleterre sëriñ Alhaji Seck ñoom sëriñ Mamor Diop ñoom ak ñi nga xamante ne ñi ngi ci liggéey bi yépp te di ko diglu fële ca Portugal sëriñ Mouride Wade sëriñ Xaadim Fay ci Rawena waaye sëriñ Pape Gueye fële ci Vicenza ak mboolem ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir yépp rek ni nu koy waxee nun ne mënunoo lim waaye bu tuddee kenn rek daf ñu yóbbaleel suñ mbokki auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi diglu yépp mu mel ni seen thème bii ngeen bëgg ànd ak seen mbokkum taalube Mahmoudan Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang thème bu jamono laaj la ndax dañu cee toll bu nu war a waxtaane la ndax dañu cee toll mu mel ni bokk yi ci jamono yi génn état yi wala état bu Sénégal bi nga xamante ne ci lañ nekk te man cee wax am na ay décret yu génn ci jamonoy feebar bi ñu publier ko wax ko ne mboolem koo xamante ne sénégalais la te nekk ci àdduna bi jël nañ ab dogal ci ne feebar bi képp ku ci faatu dañu lay bàyyi fa nga nekk maanaam fa nga nekk di fa tukki ku feebar bi dal te nga faatu ci dañu lay denc foofa maanaam dañu lay suul foofa mu mel ni état Sénégal jël na dogal boobu dogal bi it état bu Sénégal dafa mel ni daf ko teg ci ay point yoo xamante ne moom la wax ne point yii la koy teg nun nag ci sunu wàllu bopp ñu nekkoon ci diaspora bi yàgg am ñu mel noonu yàgg leen a toppatoo yàgg leen indi Sénégal mu mel ni nag nun jàngat bi ñu ci am dafa mel ni etaa bu Sénégal li mu laytaayoo ba wax ko laytaay bi dafa dëgërul ñàkk googu mu ñàkk a dëgër nag ak gisin wi nu ko gisee noonu ak gisin wi ko diine gisee sunu ko mengalee ak état bi ni mu ko gisee lépp dafa nekk ay njuumte ndax bokk ci ay gisiinam ñu wax ne dañuy bañ feebar bi nga xamante ne moo dal kooku ba faatu mu nekk wàlle maanaam ñu indi néew bi mu am ay wàll yoo xamante ne daf koy wàll fii ci réew mi di yokk feebar bi bokk yi nun ñu nekkoon ci diaspora bi yàgg nanoo am néew buy wàlle ñu indi ko senegal man ci béréb bi ma gën a xam muy Italie nga xamante ne fa laa nekkoon bu nit masaan faatu ba hôpital wooñu ne nu defar leen ko ndax man ngeen ko yóbbu seenum réew dañu cay tegal ay sart sart yi mooy su fekkente ne néew buy wàlle la nee nañ ñu mën ngeen ko sang te defar ko sang ko te ñu kaske ko dan ñu cay tegal ay sart sart yi mooy dañuy protéger mboolem jëmm yi nga xamante ne ñoom ñoo koy defar am na yuñ leen di diw am na yuñ leen di jox am na ay prothèses yu ñuy jël am na ay yére yu ñuy sol buñ ko sangee ba noppi ñoom hopital bi ci seen wàllu bopp am na lu ñuy def ci biir néew bi suñ ko ci defee ba noppi ndax ñoom tubaab yi maandu nañ maandu gu toll ni ñun daanañ leen leeral wax leen ne leen bu nu sangee ba noppi du nu bëgg ngeen laalaat néew bi kon lu ngeen ciy def def leen ko avant nu koy sang ba tax na am na ci ñoo xamante ne ñun daanañ sang ba noppi ba defar ba noppi su ko defee ñoom li ñuy defal néew bi duñ laal néew bi ab pikiir la ñuy bu gudd gudd boo xamante ne man pikiir yu toll noonu sax ma mësuma ko gis moom lañ koy tiime fiñ ko sànge ci biir càngaay li lañ koy dugg pikiir ko ci biir néew bi ci biiram su ko defee nu door a jël dugal ci biir kees gi nga xamante ne Euh, astaxfirullah dugal ko ci biir baneen bi nga xamante ne baneen toile bi nga xamante ne moom lañ koy paqueté ginnaaw buñ ko sangee ba noppi suñ ko ca paqueté ba noppi door ko dugal ci benn kees boo xamante ne kees bi keesu olomiñoo lay doon papier olomiñoo bi lay doon mooy doon kees gu njëkk gi su ko defee kees googu lañuy suude kaste ko ba nga xamante ne néew bi du am dara loo ci mën gis su fekkente ne néew buy wàlle la dañ la daan propose sax ñoom wax la ne la ci keesu olomiñoo boobu dañuy def ci bopp bi benn vitre belende vitre belende boobu mooy wane ne bis buñ demee ba àgg senegal ay bokkam yi nga xam ne dañuy am jaaxle te ay jàmbur képp defal leen ko witir belende boobu tolloog bopp bi ak bët yi bu leen neexee ñu bàyyi càngaay li noonu mu wër ko ba ay bokkam buñ ko gisee mën a xam ne kii seen doom lañ leen defal fii su ko defee bu keesu olo mi ñoo gi jàllee ñu door keesu dénk def ko ci biir suude ko kaske ko ba nga xamante ne néew bi waxuma la di ko denc ci ay armeel waaye sa biir kër sax mën nga ko cee denc amatul dara loo xamante ne luy wàll ci néew bi lay doon kon mu mel ni côté boobu état Sénégal ci boppam jotula waxtaan ak ñi ko xam ndax bu waxtaanoon ak ñi ko xam du jël dicision boobu hôpital sax daanañ la ci raxal ne la muy ay kayit yoo xam ne dañ la koy defaral bu dee néew buñ munta laal la boo xamante ne dafay wàlle dañ lay wax ne la li ñuy def lépp fii lañ koy defe bu ngeen àggee Sénégal bu ci kenn laalaat dara nga xam ne dañ koy sang sang ko kaske ko defal ko ay laj koloñam defal ko ay cuuraayam yépp yuñ ko war a defal ñu defal ko ko ci biir kees googu mu nekk su ko defee door koo kaske nga xam ne bu ñëwee fii dañuy leeralal lépp ay bokkam nga xam ne ay bokkam duñ laalaat dara dañuy jël noonu rek sool dégg naa ci biir jox ji ñu ne sénégalais yi dafa am ñu ci dëgër bopp bu seenum néew ñëwee fii am na ci ñoo xamante ne dañ koy dajji waaye loolu it ngir leeralal leen ñun ñi nga xamante ne xamoon nañ ko te daanañ ànd ca ña di ko toppatoo néew yiñ daan dajji mooy néew yi nga xamante ne amuñu benn jàngoro te ñoom bu ñu jógee foofa docteur yi pikiir nañ ko ba won la ne la néew bii kat am na dat yoo xam ne su ca àggee Sénégal bu ngeen ko bëggee daj ji mën ngeen koo daj ji bu leen neexee ngeen suul noonu kon ñi nga xamante ne dañ leen daan indi ba agsi door leen a daj ci kees yooyu ñu nekk defaraat leen ñun joxe ay siiñ la wane ne ñii dara jotu leen dañoo faatu faatu gu naturel te néew bi def nañ ci loo xamante ne diirub semaine bii muy dem Sénégal ba fukki fan ak nangam néew bi dara du ci yàqu soo ko dindee it néew bi day mel na meloon bu njëkk kon ñu mel noonu mooy ñi nga xamante ne daanañ leen daj fii ci biir Sénégal kon mu mel ni état Sénégal loolu mu laytaaloo laytaay bi dëgëru beneen bi ci des it muy ci wàllu dañ koy dañ kumpa wañal dañ koy def nangam état Sénégal war naa maanaam am ndëgër laay lu toll nii jamonoy épidémie bi ñu nekk war naa am matuwaayam tamit ku jóge ci àll bi te ñëw ni ko italien yi defe américain yi di ko defe état Sénégal am nañ droit def ko parce que suñu service de seeni fii ay jullit lañ comme ñun mën nañoo dem ci armeel yi mën nañoo taxawu néew yi mën nañoo jël seeni décision yoo xamante ne bu néew bi accès ñoom ñu compagner mbokki néew bi ñu àndandoog ñoom ba suul ko te duñ ca dara kon loolu lu yomb la jaari asens képp nga leen di booleel yoo xam ne bu néew bi ñëwee ñoom ñoo koy compagner ak i mbokkam bañ àgg ca armeel yañ bëgg ñu suul ko fa dem seeni yoon kon loolu lu yomb la ku tewul ab xaalis bokk yi ku tewul ab xaalis ñaari agence nga leen di boole yu service de sen wala sax ñaari policier mbaa ñaari gendarmerie ñu compagnie leen bañ àgg ca armeel ya ñu bàyyi leen ñu denc def yépp ñu compagnie leen ñu ñibbi seeni kër loolu ku wul ab xaalis beneen bi ci des mooy seenu laytaay problème mu néewu Sénégal bokk yi état defu ci dara mbaa boog man yi ma xam ñi ko fi def te nekk Sénégal daayire yi association yi ñoom ñooy compagnie seenum néew bom ak si Sénégal ñaare buñ amee ñu leen cay dimbule sax maanaam commune bañ nekk maire bañ nekk ca lay doon parce que maire bu état maire yi état yi xam naa sëñ Pape Demba ñoom sëñ Pape Mokhtar ñoom xam nañ li may wax am na ci commune yoo xamante ne sax ñoom bu fa sénégalais faatoo ñu bëgg ko indi am na ci commune yoo xamante ne ñoom ñooy fay bee néew bi maanaam li koy transporter yóbbu am na ci commune yu koy def yoo xam ne ñoom ñoo koy fay kon et Sénégal problème bi du problème mu xaalis bu ci état di ñàkk parce que ñàkku ci dërëm nit nit ci boppam bu nit faatoo ñooy dajale seeni cinquante euro seeni cent euro ñi man vingt euro ñi man dix euro état yi noonu lañuy def ba am ci luñ ko indee waaye am luñ buñ ko indee ba noppi sax am luñ ko mën a dajale waaye buñ ko dajalee ba noppi sax am luñ mën a jox ay bokkam kon dafay mel ni kon bu dee ci mbirum xaalis état bi yoonam nekku ci ci xaalis ambassade yi moom ay nuula wosto yooyu ñu leen di defaral duñ ko ci weesu laneen la ca des lépp association yi ak daayire yi ñoom ñoo koy toppatool seen bopp ba mu àgg bu néew bi ñëwee Sénégal it ñooy luye seenub ambilaas wala ñu luwee seenub oto bu ko yóbbul ba ca dëkk bañ ko bëgg a yóbbu kon mu mel ni état bi amu ci benn coona wala benn peen boo xamante ne ñii ñi indi moom lañ ci teg état amu ci ay kayit lañ leen di defaral ambassade ñu signé ko ñu fay lañ war a fay ñu dem seen yoon jotewuñ dara su fekkee fay yu ñu muy noonu kon mu mel ni ñoom amuñu benn pen boo xamante ni wax dëgg yàlla ak benn coono bu leen ci teg mu mel ni it autorité yi nekk bitim réew muy Italie gi ma xam ñoom ñoo a gën a ragal parce que bu néew bi amoon benn conséquence yu muy joxe ci béréb boobu mu nekk waa léegi néew bi dañ koy jàppe comme bagage dañ koy peese ci kees gi mu nekk mais su fekkonte ne am na benn danger ndax ñoom docteur ya ñoom ña koy toppatoo ci biir hôpital ba danañ la ko nangoo libéré ci biir hôpital ba ndax ñoom danañ ko nangoo toppatoo te pourtant yow boo sangee ba defar ba noppi bañ kaskel la ci kees noppi nga ci ba keroog muy agsiwaat Sénégal ay italien ñoo koy jëlee ca hôpital ba ñoo koy dugal ci seeni oto ñoo koy yóbbu ci aéroport ba ñoo koy sarse ci avion bi ba noppi door laa jox say kayit yow nga embarqué dem boo ñëwee Sénégal ngay door a laalaat sam ñëw ndax su fekkoonte ne benn danger nekkoon na ci tey ñoom duñ jël seeni décision ah, kay duñ ci xaar kenn ñoom ñooy jëlal seeni bopp seeni décision kon mu mel ni état yi état ñàkk a waxtaan moo ko yóbbi li mu nekk wante amul benn ndëgërlaay bu dëgër boo xam ne ci la mën sukkandiku ba waxa ne sama njaboot nañ leen bàyyi fii léegi kon mu ñëw ci la ca nekk nag la ci nekk mooy état Sénégal bu waxtaanoon dafa wara xam ne doomam ji jóge Sénégal dem di liggéey demul Italie ngir jënd fa bàmmeel dafa dem Italie ngir liggéey am dara delsi ci njabootam ma yaakaar ne su état xamoon dara wala mu respecté woon immigré su demee ba kooku amul dara yàlla dogal mu faatu fa war nañ ko mën a jël yot ko ay njabootam parce que dafa demoon wuti lu dundale ay njabootam su demee ba yàlla dogal fa bakkanam la gënoon a yellu ci état mooy ñu jëlal ko doomam jooje jox ko ay njabootam ne ay njabootam jërëjëf seen doom ji kat na ndax bañoon na ngeen tumuranke bañoon na ngeen lompoñ bañoon na ngeen lafañ ba tax mu sacrifice ak dundam yépp dem Europe wuti lum leen jox sunu borom dogal mu faatu kon jël leen ngeen ñaanal ko te denc ko ci seeni armeel te man di dem di ko ñaanal ndax ñaan gi ngeen koy ñaanal ñaan gu am njariñ la kon état warul woon a xalaat sax naan sama doomi réew nañ ko denc fële wurul ko sax woon a xalaat ñaareel ba mooy misaal mi ñuy joxe tey suñu néew yañ fa denc yanu denc étal yi tey su état étal yi xëyoon ne am ay jafe-jafe ak sénégalais yi nu ñuy def sénégalais yi mbokk yi kenn ñaanu ko yàlla mais tey bu état Sénégal amoon jafe-jafe ak sénégalais yi nu ñuy def sénégalais yi mooy rapatrier ñëpp dugal leen ci avion delloo si leen ci réew mi ñu dëkk waa léegi nu ñuy def suñ néew ya nun ñuy jullit te moom sunu néew ya fa nekk war di dem ca armeel ya di ca yéemu war di dem ca armeel ya di leen ñaanal tey buñ xëyoon rapatrier sénégalais ya fa nekk sunu néew ya nekk nun leen di def kan moo fay dem di leen ñaanal kan moo fay dem di leen fàttaliku mu mel ni kon am réew war nay bàyyi xel ci loolu parce que adduna bi àndandoo wuñ àndandoo buy continuer jafe-jafe dafay am lu ne dafay am mu mel ni kon tey état bi waroon naa xalaat ne sama doom yooyu kat war naa leen di bàyyi xel toujours ndax ñoo doon dund di ma yoral réew mi waaye buñu ñu seeni bokk war nañ leen di leen bàyyi xel bokk yi seen doom yi nekk fii seen soxna yi nekk fi seen rakk yi seen baay yi ku ci sañoon nag bu sa doom faatoo wala sa rakk wala sa baay nga dem tiim bàmmeelam ndax tey état yi waajal nañ état yi waajal nañ tey xale bi dëkk fii tey ndax waajal nañ ko ci ne jant bu demee ba épidémie bi jeex tey mu bëgg a jóg jël alalam ne damaa bëgg a dem seeti sama bàmmeelu baay ndax dana ko yóbbu ma nga ñu suul Italie su ma jógoon tey bëgg a seeti sama bameelu baay ndax dana ko yomb lu ne ngay daj ci wiisaaya alal ju bari nga ci ñàkk lu ne nga ci ñàkk ngir mën a xam sa bàmmeelu ndey boobu wala sa bàmmeelu baay boobu fan la nekk ngir nga mën a dem tiim ko boo demee di ñaan yi visa ñu dàq la kenn du la may nga xam ne danga nga mën a dund ba faatu doo tiim mukk sa bàmmeelu baay boo mooy tuut ndax état yi na xel loolu métit woowu ndax état bàyyi na ko xel bokk yi xam nga waxee wuñ ci ne dafay am yoo xam ne léeg-léeg dañ koy xaw a dépassé tuuti sunu boroom xam na lépp ku nu denc ci Italie ku nu denc Sénégal mais diggante boobu diggante ki faatu la ak sunu borom kooku seeni diggante la moo xam fam koy ramoo ak num koy ramo yan armeel la koy tuxal ak yum ko du fam koy bàyyi ruuga kese la soxla loolu problème mu sunu borom la ak ki faatu mais problème yi kiy la ñuy wax kiy dund mbokk yi même tubaab bi tey bu baayam faatoo ñu yóbbu ko senegal wala ñu def ko feneen dafay bëgg a xam bàmmeelu baayam fan la nekk ngir mu mën a dem tegal ko ay fleuram wala mu ñaanal ko wala mu defal ko la même même sénégalais bi c'est la même chose kon ginnaaw côtéwul état ab xaalis ginnaaw côtéwul état ab nangam yu baree bare lu tax état bi bëgg koo bañ bokk yi ma ne su fekkee lu ñuy waxtaane la te teg ko ci dëgg émigré yépp tey nañ dem ci Facebook yi nañ dem ci rajo yi nañ dem ci émission yi nañ dem ci moom fépp fu ñuy waxe ci kërug àdduna nañu bañ ba tëdd ca naaj wa seen doom yi faatu nañ leen bàyyi ñu denc ko ci seeni réew seen doom yi faatu nañ leen bàyyi ñu yóbbu ko ci seeni réew denc ko amul benn conséquence bu ci nekk amu ci amu ci benn néew buy wàlle amu ci ndax nañ koy defaree ci bitim réew néew bi waxuma la yóbbu ko ci armeel waaye sa biiru saar sax man ngaa jël kees ga denc ko ci ay at te dara du la ci fekk la ci fekk mu mel ni kon bokk yi nañ xalaat bu baax a baax sunu armeel yi fii ñi fi tëdd bis bu nekk ñu rof fa ay nit yoo xamante ne ñay rob si danañ jël fukki xul wallaahu ahad ak benn bàyyee ko ña fa tëddoon bu yàgg te bis bu set ñu def ko fukki yoon wala ñaar fukki yoon bu dee ci armée di Touba yi wala yu Daaru Muxti yi mu mel ni kon immigré yi ne wax dëgg yàlla bu leen état profito ci paludisme bu leen état profito ci épidémie bi am te muy coronavirus ba tax ñu bëgg nag luñ jël rek teg ko ci seeni kaw jaaduwul nañ indi seen néew yi nañ bañ bu ñu denc seen nit ñi foofu buñ leen ko fa denc buñ denc seen nit ñi foofu amul benn benn benn danger bu ci nekk amu ci ay tappaleeki caaxaan rek la benn danse benn danger bu ci nekk amu ci amu ci bokk yi nit ki nag li nga war a bañ danga ko war a bañ ba mu sës kenn ku ci nekk ci ñu ni ma ko waxee muy ni ko tubaab bi bëggee noonu lañ ko bëggee fii Sénégal bi épidémie bi di tàmbali képp li la xamal ne ay tampale kese la am na ci benn kaa boo xam ne dañ ko évacuer bokk yi kuy dund hôpital yi Sénégal yi nekk fi mën a faj mën a def yëpp mais ca yu njëkk ye bi mu demee ba am épidémie bi dafa wax sàkku ñaan ne nañ ko jël yóbbu ko am réewam dañ ko jël delloo ko am réewam ba am réewam la faatoo ñu suul ko fa te kooku day dund yor feebar bi wàlle su demee mën a gis ay nit parce que mi ngi dund ba léegi toxin gi wuñ ko defuñu ko dara defaluñ ko dara loo xam ne luy tee mën a wàlle la te teewul dañ ko évacuer yóbbu ko am réewam léegi ñu bëgg ñu ne suñu néew bi faatu dañ koy bàyyi fële suul ko fa waa léegi sa doom ji nga xamante ne mi ngi woon yi nga xam ne dëkkul Italie tey li muy ñaan mooy bu amee alal dem investir si nekk senegal day bàyyi bàyyam boobu foofu ci Italie da ko fay bàyyi da koy bàyyi ci armée foofu da koy bàyyi foofu dikk ñibbisi te ëllëg si biir nu bëgg suñu doom yi bu amee xéewal dikk investir si senegal nekk fi man di fi liggéey ay nit di ci jariñu léegi booy ñibbisi nooy def da nga bàyyi sa bàyyi ci armée le foofu ma ne état nañ xoolaat li ñuy def bu baax a baax bokk yi dafa am yoo xamante ne ay caaxaan ak tappale kese la na immigré yi nekk ci adduna bi yëpp yi nekk Amérique yi nekk Italie yi nekk Espagne yi nekk Côte d'Ivoire yi nekk Afrique du Sud nañu bañ ba tëdd ca naaj woon seen doom yi faatu nañ leen ko andil Sénégal mbokk yi leen ko andil Sénégal yi ndax fii la ñu dëkk. di ñaanal seen baaj. di ñaanal si salaamaaleykum ñaan yëpp salaam seex bi def sant bu baax a baax alhamdulilah kii de Assane lay la tudd suñu nekk fii ci Toscana mhm. suñu Assane boobu ñooy bokk daayira li ci ëpp mhm, alhamdulilah amante nañ bu baax sant mhm, alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi sant bu baax na leen dafa coono yëpp. woote wu ñu waaye wuute wu ñu ñu ngi teewlu léeg-léeg bu ñu amee jot rek doon doon déglu. Mm-hmm, mm-hmm. alhamdulilah. li fi jaar lépp nag ñoo ngi leen koy masawu di leen jaar mboolem ñi fi joto wàccu lëg yi. alhamdulilah. yàlla dogal ñu yóbbu leen Sénégal mbaa sax lay wax. Mm-hmm, man de dafa am xalaat bu ma amoon. comme que ñun dañoo am. baay hmm. am yaay hmm. am bàjjan am lépp hmm. moom lañ war di lu lu lu ne càpp ci moom lañ war di dem ana kooku mooy kan mooy sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg dafa am loo xam ne bi autorité buñ ñu ko bëggee teg dañ euh, euh, jëkkante la rek dañuy fexe ba dem ci sunuy kilifa luñ ñu ne càpp dal ci ñun rek ñu dem ci sunuy mm-hmm. kilifa wax leen ko mm-hmm. bu boobaa day day gaaw a réglé wuta duñ ci am benn jafe-jafe mm-hmm. man loolu mooy sama xalaat benn gun xalaat bu rafet la waaw bu bu loolu bu loolu jàll bu loolu jàlle it damaa gis ni Mm-hmm. xam naa problème yi bari na kuy di affaire yëpp bari na. waaye mm-hmm. man li xew in général maa nga koy déglu maa ngi koy topp. Mm-hmm. doonte musuma ci dara aw ma sama kàddu soriwul. ndax gis naa fi barki Dembo Ndiaye eh, ci net bi koo xam bi police yi Tuubaa dañ koo dóor ba xaw koo gaañ. maanaam eh, li ma bëggoon comme que sëñ Muntaxa dafa am koo xam ne dafa doxale suñ digg moom. suñ digg ñun ñun taalibe muy suñu bas Abdou Khadir ak ñeneen ñi koy waxal nga xaye bii bu amee lu mu bëgg wax ñun taalibe yi daf nu koy wax su mm-hmm. kooku la koy jaarale mm-hmm. ñun taalibe yi nag war nañoo am koo xaye bi bu suñ bët xonqee ñu dem ca moom wax ko ko mu dem ci sëñ mm-hmm. dëgg la dëgg la dëgg la jàpp naa ko ku mel ne sëñ Abdou Samad wala sëñ sëñ sëñ euh, euh, doomi sëñ Abdoulaye ji am sa sëñ am ñu dëggu ñooñu la ñu war a tànn ñun taalibe yi nag bu suñ bët xonkee balaa mat ñaari minute ñu dem ca ma wax ko ko ñoom ñu dem ci sëñ ba àggee ko mhm, mhm. ndax sëñ bi dafa am kum doxale suñu digg ak ñoom ñii nag dañoo am kuñ do war a doxale suñu digg ak sëñ bi di ko yëgal suñu suñu problème baarakallaa sëñ Asan gis nga gis nga doguma la waaye gis nga doguma la waaw dafa am lu am importance loo xam ne immigration bi dañ ko ñàkk waaw mooy dañoo ñàkk ay représentant fii ci Sénégal ñu leen représenté dañ ko ñàkk. waaw représentant loolu moom loolu moom musuñ ko am. ma ngoog ma ngoog dañ koo ñàkk lool te léegi dafa jaadu. dafa jaadu noonu nga ko waxee dafa ja dafa jaadu noonu nga ko waxee. ñu am fi ay représentant yu wér ay nit yoo xam ne lu xewati. dañuy jóg ci ñooñu ñooñu demal leen ci kilifa yi lañ bëgg a wax ñu wax buñ ko yàggal buñ koy bu mu doon yàgg. bu ñu gisee ku ñu dóor net bi lu xew des na ko dugal ci net bi lu ñu dugal ci net bi ñu yëkkati seen sëriñ soosu nga xay bi moom gaaw nañoo ñu te ci dëgg de mu la ñuy dox ñu doxale leen suñ dugal sëñ bi fu suñ dox xool nga ñu yebal leen ci inshallah mm-hmm. mm-hmm. man de loolu laa gis ci comme solution affaire bi ba mu xewee bu fekkoon ne bii sëñ ba dem euh, euh, ñi ma la wax dem nañ ci sëñ ne leen euh, nañu fexe nañ soppee li ñu li ñu fi tëral lu mat ñaari nit ñuy soppi boo xam ne président bu dikkee ci yow day day sukk loo ko wax mu def ko lu mu ci yow la jëm si mhm, mhm. man de loolu koy sama xalaat ci affaire yi rafet na rafet na tayit tayit bu ñu andee eh, ay lu mel ne police mbaa dara lu ñuy kii ca eh, eh, Sénégal ñii ma la wax di ko saytu ndax man police jànnatu dem naa fa di toppatoo kayit tuxuma fa xeeñ kenn xamul nu mu toll. Mhm, kenn am tuxuma fay xeeñ ba ne ma fa jóge Mmh. police yi ñuy andi euh, bu ñu seet ñoo xaye bi tekkiwuñu dara mbaa duñu euh, sax yi jullit ñu andi leen fa ñuy dóor nit ñi ka dàq mmh. dañu leen na war a sekk mmh. man li ma métti bi bari na lool waaye awma kàddu awma ku am kàddu waaye yéen bu ngeen waxee ñu déglu leen ak li ngeen di sori sori bu ngeen waxee ñu déglu leen loolu moo doon sama xalaat macha allah macha allah rafet na di siyaar Pape Demba di siyaar mboolem ñi ngeen seqal plateau beeg ñëpp. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yal leen pour yàlla defal jàmm te musal ñu ci feebar bi. jërëjëf jërëjëf. Ah, ñun ñëpp ñu delluwaat euh, Sénégal ak sunuy dàll. jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Assane jërëjëf. Euh, di ko di ko sant bu baax ci taxawaay bi ak pasteef bi nga xamante ne moom la am ak bu rafet bi nga xamante ne joxe na ko Euh, loolu lu am solo la loo xamante ne ñun ñëpp war di bàyyi xel euh, ñu dem ci troisième point bi troisième point bi mooy jullit sañ naa déplacer ab néewam sañ na ko suul fii ba foofa kiiwul mu jël ko yóbbu ko sol loolu moom l'islam waxu kenn ko ci nekk ci jullit sañ nga ko mu mel ni kon tey li ñuy war a bàyyi xel mooy di bàyyi xel ëllëg xam nga dëgg la Italie yaatu na fala ni ñuy sàkkoo suñuy teraanga fa la ñuy amee laa ngam waaye nag ak lu mën di doon rek suuf sa dëkkunu fa dañ faa dem ngir di fa liggéey ku ci am xeewal li nga bëgg mooy ñibbi si senegal léegi nag suñu néew yooyu ñu fa jot a suur akas néew nañ wax ak état bi wax ju leer joo xamante ne bu épidémie bi jàllee nañ ñu jox suñu néew yooyu ñu andi leen Sénégal kenn ku ci nekk fa nga bëgg yóbbu sa nit nga yóbbu ko fa say bokk di fa dem ñëpp di dem di ko ñaanal ndax ku nekk fa lay di ko ñaanal dafa bokk ci dund gi naam boo nekkee Sénégal ñaanal ko dana ci jot waaye bokkul ak nag ki nga xamante ne ay doom doomam wala ay soxnaam wala ndayam wala baayam ñi ngi fii wax dëgg yàlla buñ sañoon gis seen bàmmeelu doom yooyu buñ sañoon gis ko seen mbokk yooyu buñ sañoon gis seen bàmmeelu doom yooyu ba tax na état wërta jóg rek num ko xalaate moom wala doo xamante ne yomb na ci moom rek mu génne xalaat boobu teg ko ci seen kaw lu ñu wax ñu d'accord beneen bi ci desit mooy bi sëñ Assane mi doon wax léegi man damay gis ne immigration wax dëgg yàlla léeg-léeg benn côté bi dama leen di yërëm mooy wax dëgg yàlla ñàkk nañ représentant fii ci Sénégal ñàkk nañ ñu leen représenté lool parce que tey mais man da léeg-léeg damay jaaxle bay bëgg a dee am na luwaay yoo xamante ne boo bu jogee mais léegi ana kilifa diine yi nga xamante ne dañuy jóg di seet ci diaspora bi kilifa diine yi jóg di seet ci diaspora bi ana mais ay kilifa yu mag lañ am na ci ñoo xam ne mën nañoo dem ba nekk ay xalifay sëñ Touba sax ndax ñooñu tey ñu déggee lu jaaduwul ci diaspora bi waruñoo jël seeni responsabilité waruñoo jël seeni responsabilité dem wax ak sëñ Mountakha waruñoo jël seeni responsabilité dem wax ak ba état am décision yoo xam ne bu ko jëlatee ci immigré yi ñoom ñu génne leen ci wala léegi dañuy toog ba wuti xaalis jot rek wala wut nangam jot rek kenn ku ci nekk sol sa mbubb dem ci diaspora bi su ko defee bu boobaa nag dafa indi ay problème yoo xamante ne wax dëgg yàlla am nañ ay kilifa yoo xamante ne kilifa yooyu damay wax ne am na ci kilifa yoo xam ne mën nañoo dem ba nekk xalifa mën nañoo dem ba nekk nangam am na ci ñoo xam ne ay xalifa lañ seen kër baay am na ñoo xam ne mën nañoo dem ba nekk xalifa suñ tuuba nag di jël ci information yi fexe ba information yi ñuy génne ñu di ko xam wax dëgg yàlla ñi nga xamante ne moo xam xalifa la tiwaawoon nga dëkk wala ñeseen wala leneen te am fa say doom am na ci yoo xamante ne ay décision yoo xamante ne nag su ko état jëlee tamit ñooñu war na yow jël seeni responsabilité fexe ba état dellu ca ginnaaw andi néew lan moo ci nekk réew yëpp koy def réew yëpp koy def wax naa la fi ne la léegi France am na seen doom ju fi nekkoon joo xamante ne bi épidémie bi amee bi mu demee ba dal ko ba ñu yóbbu ko réanimation dañoo ñaan ñu delloo moom dafa ñaan dellu ci ay bokkam te boobu mi ngi dund mën naa continuer di wàlle mën naa def yëpp ginnaaw kuy dund te am feebar bi wàlle moom lañ mën a dellu am rew waxuma laat nag koo xamante ne tey jii nii dem na ba faatu ñu di ko kas ki nga xam ne kenn duutu ko laal kenn du ko gis ba mu lay wàll nga xam ne kenn duutu ko gis ba mu lay wàll mais léegi ana représentant yi maanaam maanaam maanaam tey man li may may wax ni tey loi bi bi mu jógee tey ñun ñi rek ñoo ciy wax mais mais mais ana yeneen kilifa diine yi ci nga xamante ne ay représentant lañ tey dem ci diaspora bi di jaxasoo ñoom tey ñooñu dañoo waroon a jël seen i responsabilité sol seen mbubb jog taxaw ci diaspora seen ba seen saafara saafaraw sinon lu lan luñ leen di jaari ñetti teg kilifa diine yooyu yëpp dañoo war a jóg taxaw wax dañoo war a jóg taxaw wax ba immigré yi nekk ci àll bi buñ leen tegee loo xamante ne jaaduwul kilifa yi jël seeni responsabilité parce que responsabilité yooyu mooy dimbali réew mi te mooy li koy saafara mu mel ni kon sëñ sëñ moodu rek comme noonu nga def bu amee ku bëgg yëngatu rek mën nga koo bàyyi mu mu dugg su ko defee ñu continuer waxtaanee ko ñi ngeen koy ànde ak seen mbokkum taalube Mahmoudan Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang ba keroog waxtaan wi di di di di di àgg ci jotaay bi nga xam ne ci lañ ko war a tëje kon mbokk mu yëngatu rek mën nga koo bàyyi muy euh, dafa mel ni daal wax dëgg yàlla man li may wax ne diaspora bi manqué nañ nag ay représentant manqué nañ ko te ñoom nag war nañoo taxaw fi ñu toll nii tey euh, épidémie bi am di coronavirus war na leen a yee war na leen a yee bokk yi parce que yeewu jot na nag yeewu jot na ngeen wut seen ay représentants wut ay nit ñi leen taxaw fii ci Sénégal nekkal leen fi nekk gu wér ngeen boole kilifa diine yooyu ak seen député yi fi nekk tey ko mel ni soxna maam jaaramee nekk fi tey ku mel ni sëñ Nango sekk mi fi nekk fi ñu wut ay kilifa diine yoo xamante ne ñoom itam maanaam gis kilifa diine yi dana yomb ci ñoom ba bu ab luwaa jógatee bu ab luwaa jógatee sëñ Nango ñoom mën a jóg ànd ak kilifa diine yooyu demal leen ci ñi nga xamante ne ñoo représenté yoon wi demal leen ci état bi wax ak ñoom ngir décision yooyu bu fekkee du décision yoo xam ne yu baaxul ci yéen la ñu man cee retourner waaye kenn ku ci nekk xam ne ne décision bàyyi ñu jël seen njaboot yi di ko suul ci àll bi décision boobu moom xëy na xam ngeen ne baaxul ku ne xam ne ne baaxul ku ne xam ne ne baaxul ndax ëllëgat si biir jamono yi xaw a neex tuuti rek wala nga bëgg a ñibbi si Sénégal da nga fay bàyyi sa bàyyi wala nga bàyyi sa nday jiñ fa suuloon dikk ñibbi si doo bokk ak moom ci benn benn benn suuf te kenn ku ci nekk boo sañoon ni ngay dundee ak say waajur buñ faatoo yi noonu ngay continuer di dund ak ñoom soo amee sa ajjuma soo amee sa alxames nga mën a sangu ba set waaxu ba ci armeele nga jox ko fu fukki xul walaaw xat ak benn tiim ko ñaanal ko yow itam boo faatoo ñu denc la ci wetam ngeen bokkandoo nekk fi ngeen di ne kenn ku ci nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg bokk yi ku nekk ko bëgg kon mu mel ni tey état bi yi mu laytaa yooyu yëpp amul benn ndëgër lay bu wér amu ko teyit waxtaanut ak kenn waxtaanut ak kenn ndax nun ñi ñëpp ci diaspora bi lañ doon dund nekk foofu waaye tey amuñu sañ-sañu dem ne état bi da def nangam parce que xam nga loolu bala mën a am mooy diaspora bi dañuy am ay représentants fii ci biir Sénégal su boobaa bu mbir xawee da nga àndandoog war a àndandoog ña nga ko war a àndandool su ko defee ngeen dem ci kilifa diine yi su ngeen demee ci kilifa diine yi jàmbat leen ko bu ngeen jógee ci kilifa diine yi fexe ba état bi dégg ko su ko defee am décision mais décision bi moom na ci muudu muudu yépp jóg na ci immigré yépp jóg état arrière ci léegi état deltu ci ginnaaw te waxuma la deltu ginnaaw sax waaye na deltu ginnaaw sax ci wut ay kayit yu wér yoo xamante ne bu épidémie bi jeexee ñañ fa suul danañ leen jël indi leen fii ku ci bëgg ñu indi la say ko sulli dikk indi ko fii parce que mën naa nekk danañ ko soli indi ko fii ñu denc ko fii ci Sénégal mën naa nekk yeneen nit yi noonu la def yeneen réew yi kon mu mel ni tey am na ci yoo xamante ne nit ñi dañ ko war di ko bàyyi xel dañ ko war di ko bàyyi xel fii sunu état yi wax naa ko ba keroog ci keroog ci kii bi ma ne leen xoola tey bi nga xamante ne épidémie bi am na état bi daf daal di jël ay décision mais mëni su ta ñàkk bañ a tëj jàkk yi mëni su ta ñàkk bañ a tëj ba même même su fekkente ne mëni su ko ñàkk bañ a mais léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo yilif jàkk yi xam li diine wax xam li lislaam wax lu tee duñ toog waxtaan ak ñoom tey loolu laa ko wax barki démb ma ne avant ñuy tëj ba benn imam di joxe ay ordre naan mën nañoo tëj wala mënuñoo tëj lu teewoon ñoom kilifa diine yépp ñu toog waxtaan ba xam nuñ koy doxale kenn ku nekk jël say responsabilité ñu xam ba xam dañuy tëj duñ tëj dañ koy organiser wala duñ organiser mais état bi day jël seeni décision rek du dëppoog diine du dëppoog l'islam xalaate niñ ko bëggee rek toog di diglu France décision bu France jël rek bu suba jaa Sénégal jël ko ñu toog di leen ci seetaan ñu yàq diine ji jaxase nit ñëpp di wax tàmbali dal ci kaw diaspora bi nangam ak na tey yooyu yëpp mbokk yi waroon nay doon lu segg loo xam ne duñ koy jariñoo ba mooy tey état Sénégal ni France mënoon na ko def léeg-léeg état Sénégal waroon naa mën a am ay vol spécial Air Sénégal gii ñu am waroon naa mën a am ay vol spécial yoo xam ne tey wal spéci wal spécial yi tey ki nekk Italie te am fa problème boo xamante ne dafa war a delsi ci ay njabootam mënta ñàkk mënta retourné dafaa demoon doon fa jëndi dara rek kalewu fa wala def nangam nangam tey waroon naa am mën a am ay wal spécial yoo xamante ne léeg-léeg mu jaar Italie jëlaale fa lu mat ñaar fukki nit wala fanweeri nit buñ ñëwee Sénégal ñu testé leen mette leen na mu jeexee ñu dellu ci seen i njaboot mën a dellu ci seen i liggéey mais bi fi toll am na ci ñoo xam ne ngi toog ci kër yi mënuñoo ñibbi si amuñu dara leen man te pourtant Italie mi ngi koy def Italie bari ki démboo njaay am nañ fi am nañ fi wala spécial boo xam ne man am na ci sama doom joo xamante ne ci la ñibbi na ci sama doom joo xam ne ci la ñibbi Italie fii aéroport gii la départ ci la ñibbi Italie tey Sénégal ba waroon naa mën a am wala spécial léeg-léeg budul am toujours léeg-léeg muy am ay wala spécial yoo xam ne day jaar France cas urgent ya fa nekk nga xam ne dañoo bëgg a ñibbisi cas urgent ya fa nekk nga xam ne dañoo bëgg a ñibbisi su ko defee ñoom bu demee ñu jox leen ay numéro téléphone yoo xam ne ci la ñuy téléphoné cas urgent yi ñu segg ko ñooñu dikk ñibbisi ci seen i njaboot suñ dikkee wàcc ci aéroport ñu testé leen yóbbu leen ci hôtel yi téye leen 14 jours bu fekkee amuñu dara wala yooyu ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen i njaboot loolu ko mais booba léegi jéemu ci dara dañoo bloqué ñëpp ci àll ki am cas urgent ak ki amul parce que tey am na ci doomu réewam joo xamante ne mi ngi fii tey ay kayitam Italie jeex na mi ngi Sénégal mën a gudd ñibbi am na ci koo xam ne ay handicap lañ mun am na ci koo xam ne dañoo am ay hypertension am ay randiwu Italie yoo xamante ne dañoo waroon a tey ñi ngi tëdd fii ñi ngi fii ci biir réew mi wutaluñ leen wenn yoon woo xamante ne yoon woowu ci lañ mën a déplacé woo pour delluwaat seen njaboot tey am na fi ñoo xamante ne hôpital dañoo am ay randiwu hôpital ñi ngi tëdd am na fi ñoo xamante ne tey seen doom yu ndaw lañ bàyyi foofa seen bàyyi leen mujj di yor ay jigéen Espagne barki démb am na fi wala spécial boo xamante ne ay doomam yu fi nekk dem sénégalais yi fi nekkoon sax te amoon ay doom yu ndaw nga xamante ne dañoo amoon ay doom yu ndaw Italie wala yooyu wal boobu am na ci ñum yóbbaale ñu dellu ci seen i doom nga xam ne ñoom même seen sénégalais yi nga xamante ne dañoo am nationalité nekk Espagne sax ñu ngi leen di bàyyi xel waxuma la ak espagnol yi ñun duñ bàyyi xel ci suñuy doom te buñ xëyee rek xëy xëy génn benn loi boo xamante ne loi bi moom la ñuy génne ba pare gàll ko ci seen kaw gàll ko ci seen kaw kon tey nëga wax dëgg yàlla sénégalais yi nekk ci àll bi te yor ay yore ay association yor ay nangam di yëngatu ci affaire syndicalisme di yëngu ci nangam tey war nañ ak daayira yi ci seen bopp war nañoo wut ay représentants yu wër Sénégal ci kilifa yi ci muudu muudu yi ci député yi yoo xamante ne bu dara amatee nag ñooñu ñooy taxaw ne nangam ak nangam lii war a am su ko defee la war a am ju doxal ko. waaye toog di seetaan rek loi bu ñu yëkkati dóor ko ci seen kaw loi boobu mën naa ñàkk loi bii nag li ñuy ñaan état bi mu deltu ci ginnaaw léegi te xam ne loi bi baaxul. loi bi baaxul na ci deltu ginnaaw léegi loi bàyyi seen doom yi ñu suul leen ci àll bi loi bi baaxul baaxul ñaareel ba mooy xaalis yooyu ñuy wax naan dañ koy joxe. ak i jëndi jëndi jëndi jëndi jënd ay armeel ci ci dëkk tubaab mais sëñ bi mën naa ñàkk armel yi ngay jënd di ci def xaalis bu bari nga xam ne ay contrat lay doon am na foo xam ne bu fa demee ba àgg fa sax bu leen neexee ñu maasale ko lépp du nekk ay armel parce que Europe amuñu suuf Europe amuñu suuf ay contrat lay doon ay at amuñu suuf te bàmmeelu jàmbur laal ko lislaam bëgg ko dafa bëgg ñu bàyyi ko noona bëgg ñu bàyyi ko noona tey yooyu yëpp état bi daf ko war a sedd sédd goo xamante ne li mu war a sédd mooy xaalis yooyu mu nar a jël di ko jënde ay armeel ci àll bi xaalis yooyu nañ ko wutal ay fonds wutal ko ay assurance dugal ko fa su néew bi faatawte ñu mën ko ñu mën ko andi ab néew bagage képp la amul dara lu mu ñu bis ay bagage sax fi nit ñi dem la ñuy jël jàll ko ci biir bagage yi fi nit ñi dem bu ñëwee fi ñu jël fi yóbbu ci armeel yi soo protéger nañ ko ba du gaañ kenn protéger nañ ko ba du gaañ kenn ndax man lii ma leen jox wax nii lu ma dund la dund naa ci Italie néew buy wàlle faatu ko nañ koy defaree xam naa ko ba kenn du ci mën a ba kenn ba kenn du mën a laal kenn dara xam nañ ko yëg ko dul wàlle nañ koy defaree xam nañ ñun xam parce que jaar nañ ci kon mu mel ni bisimilah mbokk mi dafa mel am na mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu sëñ bi ñu ngi kooku Alaaji Njaay Tuubaa moom sax waaw sëñ Alaaji naka yi tey ngi ziyaare baa Mbàkke jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi sant bu baax alhamdulilah alhamdulilah jàmm rek alhamdulilah taarikala alhamdulilah ñu ngi leen di ziyaare bu baax yàlla yàlla te boole na ko ñun ñëpp ziyaare mbokki kilifa rek alhamdulilah amin amin amin ngi leen di ñaanal sant baax a baax di am di rafet lu baax di leen topp ci waxtaan yi. alhamdulilah alhamdulilah. ndax ziyaara beeg ñaan yi di ko ci loxo si Modou Mbaye. mboolem ñu topp rajo bi ñëpp. alhamdulilah alhamdulilah. di ñaanal jàmm na ko joxe say siir. amiin amiin amiin amiin. di rafet lu baax waxtaan yi xam naa di la doole ñaan rek di rafetlu laa dëgëral gën laa kàtt na. jaay seen xadim. amiin amiin amiin. te it suñu bokk ci xool nañ si ñi nga xam ne buñ déggee wax ju ak jafe ko uh-huh. alhamdulilah alhamdulilah waaye daal wax dëgg yàlla moom xam naa ne li nga war a def lépp daal yaa ngi koy def alhamdulilah alhamdulilah ngir yàlla ak ak taalibe rek tax nga koy def alhamdulilah alhamdulilah waaw foofu nga wax daal moom ñun ñëpp foofu la ñu waroon a nekk mm-hmm. alhamdulilah alhamdulilah ndax ko sëñ Tuubaa waxee rek mm-hmm. ku la mënal sañal la waaye boobaa nay fekk kala nay doon kala kala kala kala sañ kala war a sañal war a sañal hmm. waaw noonu nga ko waxee daal phase bi ñuy wax naan ci Diaspora bi lépp daal ñun ñoo waroon am fulla ak fay taxawal la li ngay li mooy li du ñor hmm. hmm. waaye fi ci wax lu jëmee noonu ñoom phase bi daal ñoom la ni la ni lépp loo xam ne nii lu xaaj bi bari bari ki nga xam nga wax su muy su muy diine moonu moonu war a ñëw uh-huh. dëgg la fekk xam na ne diine am na uh-huh. Uh-huh. naa ne foofu ngay wax daal ñun ñëpp war na noo bàyyi xel ci siwaat ci ndax loolu nga wax daal moom mooy dëgg mooy li moom dañ fay ñëw gis rek waaye luñ fi mën a amit moom Sénégal nu ko muy dund muy dundee dëgg la dëgg la dëgg la mm, la dëgg la dëgg la. Oh. te te nit ki doomu aadama bi sax réew mi mu juddoo dafa am solo ci moom na dafa am ci moom. ku sañoon fa nga juddoo fa la sa ku sañoon fa nga juddoo fa la sa bàmmeel di nekk. wallaahi naam. say njaboot say say njaboot say njaboot di la fa fekk bu fekkonte ne dafa am teq-teq bu tee ñu mën koo def waaye benn teq-teq amut aw lay rek la. benn teq-teq amut. Ah. moom daal xam naa ne moom wax dëgg moom ñoo di tàllal loxo daal moom duñ si waay mën a jàppale daal moom loolu mooy ci moom di sant bu baax a baax di gërëm di xam daal moom ñu ngi lay ñaanal fu rek suñu borom gën laa gën a laa kàttanal daal yow kenn ci nun nga te man nga li nga doon ci nun wax dëgg yàlla alhamdulilah alhamdulilah yàlla sant bu baax tey li ngay wax nag yàlla sëñ rek tax nga koy alhamdulilah alhamdulilah hmm. alhamdulilah ziyaare waa Touba Montagne ñëpp ñu ngi lay ziyaar rafet lu baax a ñëpp ziyaareel ma leen ñoom ñëpp namm naa leen lool <laughs> jërëjëf namm nañ daayira bi lool namm nañ ko lool suñ xel ak ci yéen ñoom ñëpp waaw suñ xel ak ci yéen ñoom ñoom ñëpp alhamdulilah sëñ naar ñoom ak ñoom ñëpp rek nuyu ñu leen jawrin yéeg yëpp sëñ Ablaay ñoom ñoom ñëpp nuyu ñu jërëjëf hmm. jërëjëf ñun ñëpp ñu ngi lay naa dugg bi a jafe rek waaye wax dëgg foofu foo foo soxna soxna xadi soxna xadi ñoom ñoom ñëpp rek siyaari leen ñoom ñëpp ah ñu ngi ñëpp jërëjëf jërëjëf sëñ jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf yaay jërëjëf noonu ko sëñ Ablaye waxee lu am solo la loo xamante ne wax dëgg yàlla euh, dafa am mbir bu sosoo mbir mbir bu sosoo eh, man duñ tudd duñ tudd yenn tur di tooñ wax dëgg yàlla noonu ko sëñ Ablaye waxee duñ tudd yenn tur di tooñ waaye man daal léeg moom damay xaw am jafe-jafe tuuti léeg-léeg damay a jafe-jafe tuuti mooy eh, diaspora bi dafa bari ñu ci bokk dafa bari ñu ci bokk wax dëgg yàlla te ñi ci bokk ay kilifa lañu ay kilifa yu mag tey war nañuy diglu fexe bay bàyyi xel information yi nga xamante ne mooy jóge ci diaspora bi te état di ko jël di ci jëmale ci seen kaw ku ci nekk tey war ngaa jël say responsabilité ba kilifa diine yi nga xamante ne dañuy dem ci diaspora bi te nit ñi di leen déggal ñuy dem di defi ngan di defi nangam di gane ci réew ma ay te mooy ñun ñi nga xamante ne ñun taalibe suñ njabooti suñ Tuubaa lañ dañuy dem di leen fekk ci seen kër ya dañuy dem di leen fekk ci daayira yi dañuy dem di leen fekk fu baree bari yoo xamante ne dañuy dem di waxtaan ak ñoom ñu yëkkati ay addiya di ñu ko jox wax dëgg yàlla nit ki nag li may bëgg man toujours ñu protéger ko ci ñaar yépp su amee bànneex nga ànd ak moom ca bànneex ba su amee njàqare nga ànd ak moom ci njàqare ba tey dëgg ni nun ñi ñëpp tey kenn ku ci nekk war ngaa mën a yëkkati jébaane ci état bi surtout am na ñoo xam ne seen kàddu kàddu gu kawe la am na ñoo xam ne tey seen kàddu kàddu gu kawe la goo xamante ne eh, lii état bi jël te mooy jël décision di doomi doo doomi jàmbur yi nga xamante ne dañoo faatu ci coronavirus ñu di leen denc àll bi tey sëriñ sépp war a jël seeni kàddu ak seeni responsabilité wax ci parce que jaaduwul jaaduwul bu fekkonte ne dafa tege ci ay ay ay yu leer nga mën ko wax mais tegewul ci dara tegewul ci dara ay tappalee ki caaxaan tegewul ci dara yéen ñi nekk Italie ñi nekk Amérique yéen ñëpp xam ngeen ne néew yi foofu amu ci new bu mën a wàllee amu fi ñooñu moom buñ ci paree lañ cay def buñ ci paree moom néew mën nga ko denc sa biir salon mën nga ko denc ci sa biir salon kees gam nekk mën nga koo teg ci sa biir salon heure boo xëyee di gis kees gi dara du ci génn loo xamante ne luy mën a gàññit la luy mën a gàññit la amu ci kon mu mel ni tey wax dëgg yàlla waras na cee taxaw ba nit ñi euh, euh, lii moom na dañ na deñ ak nu mën a demee na dañ parce que du du du yoon waxuma la dañ kese sax waaye na dañ ba àgg ci euh, sunu mbokk yooyu ñu denc ci bergamo yi ñu denc ci faneen yi ñu denc ci faneen na àgg ci contrat yi ci sax na ci àgg ba bu épidémie bi jeexee nañ leen génne seen kees yooyee dugal ko ci bagage indi fii yóbbul leen ko seen mbokk yi sol leen ko jox leen ko parce que lu mën a nekk la lu mën a nekk la du dara lu mën a nekk la lu mën a nekk mu mel ni tey seen jataay bi nga xamante ne mooy al majlisu suura euh, li muy bëgg a waxtaane mooy euh, euh, beneen bi ci des nag mooy ci sunu mbokk immigré yi moom lay jëm suñu mbokk immigré yi mooy yéen tam am leen seeni fulla daayira yi ak association am leen seeni fulla wut ay représentant parce que réew mi nga bokki da nga fay am ay représentant yoo xamante ne tey ñoom danañ am kàddu ñu may wax ndax man tey mën naa ne su ma waxee ci sama kàddu bopp rek laay wax mais représenté wu ma kenn même bu bi Sëñ ñun ñëpp ci bokk yam kenn ku nekk fañ nga leen a waxal sañ naa leen ci internet bi bisimilah mbokk mi. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. waa ko baax ñu ngi siyaare de. yàlla na yàlla nangu siyaare ci xol bi. ana ah, ngi siyaare bu baax nag Mbacke di ñaan bu baax suñu borom yàggal taxawaay bi. sant bu baax alhamdulilah. di nuyu sëñ Alaaji Njaay moom kenn waa Monsa. alhamdulilah alhamdulilah yàlla na ngi topp waxtaan bi bu baax. alhamdulilah alhamdulilah. di rafetlu xam naa daanaka noonu nga ko waxee rek moom jàpp naa ne moom ñi nekk fii moom. mën naa ne moom ñi ci ëpp moom sax dëgg yàlla bu fekkee ne am nan lu ñuy métti ci xew-xew bi maanaam ci. Eh, jamono ji maanaam ci yi ñuy wax ci jamono ji loolu mooy loolu képp. alhamdulilah mooy mbokki taal bi nga xam ne bii wax nañ ba bëgg leen fee bàyyi. Mhm. Mhm. man na naa ne loolu muy tudd ne dina koy jox li muy rëy rëy suñ benn mbokk taalibe képp ñu bàyyil ñu ko fii uh-huh. moo nu ko ëppal ndax léegi hmm. luy jeex la alal ji jeex la xam hmm. na jàpp naa ne bu ñëpp mel ni man woon sëñ Tuubaa ñu delloo leen ko ne dina amati soxla macha allah ndax ñun fii ñëw na fi ngir wut alal din fi ñëw di liggéeyal sëñ Tuubaa macha allah hmm. yàgg nañuy dund te mosunoo lekk si ab dërëm te dinoo ñaan yàlla ba fi jóge tam suñu borom di ñu wërsëgal nu yor. Mm-hmm. kon nag décision bii nga xam ne jël nañ ko. comme mm-hmm. naqari wut da jàpp naa ne xamoo dara. Mm-hmm. kon nan xam ne nag xañ na noo yor baat bi de. Uh-huh. waaye nag nan xam ne fii ay taalibe fi ne ay murit saadix. saadix. lu am saari am lu sa am saari am na baatin. dëgg la. war danoo xool li ñuy def bu baax. dëgg la. te am na àq yoo xam ne de ku ko yenu war na suñ tubaab boo ko gisut fii di nga ko gisal mm-hmm. la. dëgg la dëgg la xoolaat la ñuy def rëy na trop. dëgg la suñu mbokki taalib yi ñu wax ba bëgg li na bàyyi fii. Mm-hmm. war na suñ tubaab naqari nañu trop. waaw dara ci àdduna jëru ko. te duñu ko tegut fenn nag. dara ci àdduna jëru ko. Mm-hmm. ko li ma ci gën a métti mooy ñi koy jël daanako doo xam ne sax doo xam yan saa yi nit la ñuy amul benn motif sëñ Ibrahima. waaw ah, boo jàkkaarloog ñoom sax si da nga naan ñii ñooy ñan daal ngay wax ñii ñooy ñan. Hmm. Hmm. ñii ñooy ñan. waaw hmm. ah, jël ay ñu ko teg te kenn waxut li nga wax dëgg la man ma kenn wax ci ñu ngi ñaanal waaye dégguma kenn jël wax ci. Uh-huh. te loolu suñ bi dañ ca war a wax. réew mi yow xam nga lafi fi xew. te ni nga ko waxee nan lañ mën a jëlee ku dëkk France yor feebar bi du dund. bala maa bëgg dee bu ñu wax naa delloo nañ kam réewam duñ tudd réew ma duñ ci mhm. feebar ñu mën ko delloo France. Mhm. ki faatu nekk ci kees ay kees sax laa wax. ñu ne ay ay yow moomu yow moomu doguma la doguma la suñu Ibrahima. doguma la yàgg nga ko taxaw nun ñi ñu nekk fee yéen yàgg nañ ko àndandoo yéen taxaw. waaw gis ngeen ni ñuy taxawoo ku jóge foofu. wóor na la ne mënut a indi benn benn dara lu mën a indi ci sab saal mën nga ko cay denc sab saal ñoom kay noonu toog si wax rek waaye li ma sax buñ ci xamoon dara sax du la naq xamul dara hmm. Hmm. ba noppi jàpp ñi ne fii ay dof wala ay xamul dara wala nit ñu dara hmm. tegul na ko fenn nan la mën a jële français buy dund yor feebar bi nu mën ko accompagner ba delloo ko fa mu dëkk say doomi réew nekk fi beram nga yax naa debal di jëndal suuf kuy dund dimbaloo ko ba mu jóg nga naa dama koy dimbal loolu may la noo soxla ñu jëndal suuf alhamdulilah <laughs> waaye sëñ bi ñii dawee xool affaire bi sax yow doo xam doo qu'est-ce ñaat nii nu waxi masjid ñun consulat bii ci ci Milan daayira Milan jël na xaalisam ba jox leen ko sama kanam ah. li meex mm-hmm. na xam nga kuy dimbali état xëy bu ñu doon jënd suuf yàgg leen koy jëndal daayira ba tay laa la wax wóor na Serigne Touba dugal ko ci consulat Milan bi ci néew bu nu war a yóbbu Sénégal. waaw nekkoon bu jëndal suuf loolu mooy wax la. dañoo soxla ku kon ñu mën duñ ko bëggut. nu bàyyi ni indi suñu néew lépp lu ñu defatu waxtaan ci ñun ñun dof. looloo jar looloo jar wax nag dëgg la li ci bés nag jàpp naa jàllee ñun ñu ne fii war a waxtaan suñu biir. war a waxtaan. Eh, sëñ Ibrahima dogguma la sëñ Ibrahima dogguma la mais fi ñu toll li jaadu li jaadu mooy jiiti daayira yi jiiti daayira yi dëkk bu nekk daayira ba ñu fa jiite eh, association yi fi nekk nañu wax ba lii na dañ dëgg nañ wax mu dañ ak fu seen fu seen jéebaane mën a àgg ña mën a àgg ca télévision ya Pape Demba ñoom ña mën a àgg ca télévision ya Ibrahima Ndiaye ñoom ña mën a àgg ca télévision ña mën a àgg ca rajo ya ñi mën a àgg ci Facebook a àgg ci WhatsApp yi nañu wax mu deñ parce que jaaduwul jar nañu nit sax jar na yéen seen wàllu bopp yéen ñi nga yor yéen yor euh, daayira yi foofu jar na ngeen téléphone fi délégué délégué ay nit délégué ay nit nañ dem ñu interpeller sëriñ si fi nekk ñëpp sëriñ Mamour ñoom ñi ñëw ci réew mi sëñ Moustapha xaadir ñoom ñi ñëw ci réew mi sëñ aboom sëñ sëñ sëñ sëñ fàllu ñoom ñi ñëw ci réew mi ak ñi ci nekk ñu leen jël leen dem waxtaan ak ñoom ñu dem waxtaan ak suñ Muntaxa mais lii na dañ parce que suñ doom daa war a dañ de war a ko fenn parce que teguwul fenn wër tubaab fekkee am na lenn luñ ci luñ ciy métti mooy loolu suñ mbokki taalib yi mu saadex yun xam xam ànd ak ñoom liggéey bi ba noppi ñu bëgg leen a bàyyi fi tey caaxaan ko wër na suñ tubaab loolu rek mooy li nga xam ne bi métti na métti na ba fa yàlla te teguñu ko fen hmm. xaalis si ni jox man loolu dama ko wursu tudd sax ndax loolu dañuy jaxas suñu biir taqalu te amul benn njëriñ. benn njëriñ. bi ñuy tudd lool boo ko indi fii la ay même cinquante euros yow fii xam nga amu fi wóolur cent euros amu fi wóolur. kenn daal ni am fii bu fekk loolu si loolu bañ bu ñu sax dinaa teel li nu ko Sénégal bu ñëw am nañ fay mbokk ngeen jox leen ko wala ñu ñoree war a dimbali dugal leen ko ci dimbaleel Sénégal mu jeex. ñu aw tur lay doon yàq suñu der amul soxla si xaalis bi suñu néew yi leen am problème soxla ñun lu ñu ko yóbbu. li ko waxee nag moom vraiment amul luñ ci yokkaat waaw hmm. ah, xañ na nag li ci bari moom la di xañ na eh, egg fa yombut waaye nag kenn ko daal fo nga toll rek naa ko waxee xañ na yàlla moom moom mooy egg mooy sotti mbir waaye comme nii nga ko waxee fekk na moom ñëpp xamee na ko noonu. moom dara duñ timit te yóbbu gi moom amul benn jafe-jafe. am dund kay nga mën koo yóbbu sëñ bi ku ne ci kees nga naan egg na sax may wax ne maanaam même bu mun deman ba loolu am tey bu ne lin na leen koy jënde fii suuf man jàpp naa ne comme na Ablaye Wade defoon mhm. ca jamonoy batalo joolaa ba man mhm. lu noo wut suuf ci lu jégu lu sorut aéroport bi uh-huh. ku li ñëw bu ñëw ni accompagne ko mhm. wut fa barab am ñu ko mën a toppatoo ba denc ko fa bu jàllee ñu ne ah képp ko xam ne saw ne bokk nit mi nga barab sàngam loolu xam nga ñëw des moo gën a yomb. wallaay jërëjëf nekk ci Sénégal mën ngaa ñëw des. wallaay si sa mbokk loolu ngay wax noonu jëru ko yow xam nga li fiy jóge ñun ñu yàgg nañ ko def bañ tëj ko ci suñ kanam. bam départ ñu ànd ak ci ba denc ko fi. dëgg la moom kay xam naa pour kay a woyof rek waaye. ku ma tegal li may wax nii moom ku ma tegal alxuraan ma waat ko. benn néew ba nga xamante ne bu jógee Italie ma gis nañ koy defare ku mën a ñëw fii ba wàll kenn dara man amul ci àdduna. ah loolu kay ngay xam naa leen daal moom. day wax daal dëgg la xam naa kon maa ngi guddal sax waaye yal na yàlla bokk jàppale ñëpp suñu xol seen. amiin taxawaay bi nag. amiin yàlla waaye daal bu ñëpp nii moom dina dina ca baax trop. alhamdulilah baax na jërëjëf isaakumullah xayran. jërëjëf jërëjëf mel ni àgg nañ dafa mel ni sax waxtu wi li ci des bëriwul am na mbokk muy woote waaye dafa mel ni dafa waroon jaarale ci rajo xasida day dafa mel ni am na mbokk muy woote waaye dafa jaare ci man ah, dafa jaare ci man da ngay jaare ci rajo xasida online ci sky bu rajo xasida online wala eh, ci foofu ngay jaare door a maa mën a jot mbokk mi woote nii mu mel ni eh, dafa mel ni mbokk yi waaw dafa mel ni mbokk yi eh, mbokk mu doon woote mën naa jaare ci rajo bi su ko defee rek danañ mën a danañ mën a mën a jokkoo eh, dafa mel ni àgg nañ sax ci catli fi ñuy tëjee waxtaan wi waaye li ëpp solo rek mooy ni ma ko waxee léegi bi sëriñ Ibrahima di coupé maa ngi wax maa ngi koy ñaan su fekkente ne mën naa am te am na ñuy dégg sama kàddu yi ñoo xam ne mën nañoo jote ci kilifa diine yooyu nañ ci jote parce que lii tegewul ci yoon te jaarul fa mu war a jaar sunu mbokk yi àndandoog ñun demoon ca àll ba di liggéey Eh, bëgg luñ terale seeni njaboot bëgg luñ defare seenum réew ba faatu fa nañ leen indi parce que tegugul ci ay motif yu leer kon nag maa ngi ñaan sama mbokk yi mooy sama mbokk sëriñ si sama mbokk taalibe yi képp ku may dégg te sa kàddu mën a joti fenn sama kàddu mën a joti fenn nañ dem ci sëriñ si nga xamante ne ñu ngi dugg sëñ Mamoor ñoom sëñ sëñ Moustapha am sëñ Abdou Xaadir sëñ sëñ sëñ Cheikh sëñ sëñ eh, sëñ sëñ sëñ Abo ku ci mën a dem ñiy dégg sama kàddu ku ci mën a joti ci ñoom nañ ca joti ñu wax leen ne leen état bi li mu def du loi bu tege fenn te loi bi baaxul buñ leen ci seetaan ak seeni laay seen tafale loi bi baaxul luwa bi baaxul baaxul mbokk yi nga xamante ne dañoo àndandoo woon ñoom dem ci àll bi ci diaspora bi di liggéey ba ñu daanu nañu leen indi fi ñu nekk seeni njaboot gis leen ñu suul leen ci seeni wet ñu mën a dem di leen ñaanal bu ajjuma jotee bu julli it jotee bu bisi siyaare bàmmeel yi jotee ñu mën a dem bay seen bàmmeel yi bàyyi yi ak yu seen nday yi dem siyaare leen ñaanal leen defal leen seen i xulwu ñu xam ne seen mbokk mi leen doon sowee ci seenu dund te demoon Europe ba yàlla dogal bakkanam daanu fa mu ngi ñu denc fii ci Touba wala ma nga ñu denc Tiwaawan wala ma nga ñu denc Njaasaan wala ma nga ñu denc faneen loolu la nit ñi bëgg loi bi baaxul état bi coûté wu ko dara coûté wu ko ci xaalis coûté wu ko ci wàlle coûté wu ko ci dara bu fekkonte ne néew buy walle la italien yi lañ cay daj ba nangu laa defal autorisation ne la mën nga ko yóbbu duñ la ko defal duñ la ko defal benn yenn conséquence amu ci te loi bi bu mu yem ci dindi ko kese sax mais nañ ñu may autorisation sax ñañ fa jota a suul ak néew bu épidémie bi jeexee nañ leen sulli yóbbu leen fañ bëgg nekk ñu yóbbu leen dafa mel ni am na mbokk mu ci nekk bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sang bi Mbacke Balla. ak si Mourtala Guèye. Mbacke Mbacke Mbacke. jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah. waaye xam naa ne nag ñu ngi émission bi. waaw waaw waaw mu ngi koy. la am na solo ñu ngi koy teewlu bu baax a baax am na solo Mbacke Balla. alhamdulilah alhamdulilah. xam naa ne fa nga tegoon sa tànk ba tey foofu ba tey fii ñu toll foofu dong la dëgg yàlla. alhamdulilah alhamdulilah. ak mbokkum taali bi mu duggoon avant sëñ Ibrahima dafa laa xamul wala xamul yow kan moo doon wax mais wax dëgg yàlla yow rek doy nga nu njiit ci ci diaspora bi bu sëñ Mamour weetoo. alhamdulilah alhamdulilah waaw ndax moom fekk nga fi wax dëgg yàlla wàccel sa bopp suufal sa bopp teg sa tànk ci liggéey sa maam bi rek wax dëgg yàlla. alhamdulilah xam naa li sëñ Ibrahima wax moom. tendu ci am loo ciy teg mais daal mm. man comme lan daan waxtaan rek ko wax euh, boobu ba tey ñun wax dëgg yàlla liñ am dañ koo xamul waaw ndax liñ am moom abadan daay man dappet la uh-huh, uh-huh. te ñoom ñoom nguur lañu yor nguur gi nag moom muy nguur gi fi nekk nag ñoom danoo delloo buum ca mboy mboy ga uh-huh, waaw dana xam ne tamit wax dëgg yàlla comme euh, ni sañu bàyyi ma wax séquñu koog ay jaaxir wala nañu séq koog ñoo xam ne jànguñu wala xamuñu fu ñuy teg seen tànk Mm-hmm. waaw te maanaam tamit bu ñu waxee loolu ñuy wax ñoom wax maanaam dañuy jëndal ak wala dañuy jaayal ak wala dañuy andil ak wala dañuy yóbbul ak ñi fi def mm-hmm. an at yàgg mm-hmm. di liggéey xam ne leen suñu borom defal ak lu mu leen defal wax dëgg yàlla kon loolu ñuy wax ñoom waxi nax waxi wax wax yu nax yu tegul fenn la dëgg la dëgg la moom nag comme lii moom yàlla na ko suñu borom jeexal mu jeex tàkk mais tamit euh, maanaam sax bu fekkoon ni seen bëgg-bëgg nekk na tey jii tamit mu nekk tamit tey kulli nafsin saayaxatin mawtu bakkan bu ñam dund da nga ñam dee mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. tamit fu ñu nekk tamit bu buñ fi doon tëdd tamit li sëñ bi waxoon ci xasida yi xasida rek sama taalibe yi fu nekk uh, maa leen fay njëkk a fekk fu buñ leen fa bàyyi tamit maa man leen fay mujj a gisal kon nag loolu moom tamit ñoom bu fekkoon ne tamit bëgg-bëgg boobu leen bëgg sax moom ñun buñ ñu fi dencoon tamit sëñ bi ginaaw yàlla ak yonent bi suñ sëñ bi danañu danañu danañu defal li bëgg mais loolu du nekk. ndax ñoom hmm. daanaka ñoom ay néew yuy dox lan ak ay médd yuy dox lan loolu moom. Hmm. <laughs> ñoom ñoom waa gouvernement boobu waw dëgg la dëgg la. Hmm. beneen li ci def nag moom comme yéen it yow yaa ngi Sénégal incha allahu moom ñun ñu ngi ci doon jox suñuy jéego tamit di waxtaan ñu ngi ci war a waxtaan tamit yow am naa ne pour am benn. nu ñuy benn lu ñuy dajale ci sëñ bi moom amul amuñu ci eh, sikki sàkk mm-hmm, mm-hmm. te xam naa leen ni nga ci wax a dox tamit da nga ci dox eh, sëñ Mamour mooy moom moom moo fi jëwriñu eh, diaspora bi moom ci murid yëpp moom lañ ko jox moom it xam naa ne dafa jox war ma nga jëpp yooyu dox ba tax na ñun mm-hmm. taalibe yi tamit xel wax naa dal am ci xalaat boo xam ne lan wax ñoom du mujj fenn Hmm. suñu bagaay wax tamit seen loolu ñuy indi tamit muy jëm si fii ñun yàlla nañuy yan yan yan nañuy yan nañu alhamdulilah amiin amiin. te li ñu amaku si namit ñu ñu jaayante ci wax di ci di ci yar sunu njaboot di ci joxe addiya di ci def li ci war. Hmm. maanaam jumtukaay gi ñu yore tamit amul lenn lu ko fi gën a yelloo yelloo loo xam ne hmm. xeex la xam ne wala lu ñuy waxal wala lu ñuy teewal. bu ci war te def suñ doole gën koo yokk gën koo taxawal bu taxaw wax dëgg yàlla amul lenn lu ko fi dina jege loo xam ne luy jëm luy jëm di wax ak di wax yoo xam ne ñu mën cee gën a góorgóorlu bu baax a baax gën a xoolaat liggéey bi saytu ko def ci liñ ci bëgg lépp ak liñ ci ba ba ba muy yoonu sëñ bi di doxee mu mu mu mu muy doxee noonu loolu daal hmm. man moo di moo ci doon kàddu xam naa ni wax ji moom du du du du du neexul jubul mais tamit muy jéggal rek li wax. barakallah xol bu set koy waxee. Mbacke Balla barakallah am na solo lool barakallah. barakallah si yàlla bàyyi bàyyi ñu fi bàyyi fi sëñ Mouhamadou Mountakha moom la yaakaar moom moom moo jiite yoon yi moom it euh, bàyyi ko fi wéral ay euh, ba naal bi mu bëgg li lépp ñu ànd koog moom ànd koog yéen tamit Mbacke Balla. baarakallah baarakallah suñu leen waa daaw ak mbokk yooyu yëpp jërëjëf jërëjëf suñu Mourtala jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf jërëjëf yéen àgg na lool jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa àgg nañ ci fi ñu ki tëjee wax suñu sax waaye daa mel ne am na mbokk mu nekk ci biir su ko defee ñu jël ko rek door a tëj bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mamadan waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Bas ok Mbacke Ba la Cheikh Bas Diop Tezena Diop Diop yaa ma ñu ziyaare bu baax yaa na yàlla nangu siyaar ko ñun ñëpp. masawu coono. alhamdulilah alhamdulilah. yi bokk yi nga xam ne ñooy déglu sunu rajo bii di rajo xasid online ñëpp. alhamdulilah. di mhm. leen sant di leen gërëm ci bàyyi xel gi xam ñu ngi koy bàyyi xel rajo bi. Mhm, mhm. ndax day rajo boo xam ne yaakaar naa ne rajo boo xam ne mën nga koo déglu vingt quatre sur vingt quatre heures di ci sëñ Tuubaa ci man gisuma ko fenn. dul rajo xasid online bi mooy rajo boo xam ne moom ak ku mën a toog mën naa koo taal ci sa wet mm, mm, mm. xam naa ne duma ci am lu ma te naqari kon ñi ngi sant bokk yi nga xam ne ñi ngi koy bàyyi xel yëpp rawatina ñi nga xam ne ñi ngi ciy dugal seen loxo ak mm-hmm. di rafetlu bu baax émission bi nga xam ne moom nga tey xëy na dañ ko yeex a jàpp waaye li nga doon wax mm-hmm. doon na loo xam ne yaag euh, bokki taalib yi alhamdulilahi rabil alamin daje ngeen ci yéene ci bokk yéene mm-hmm. képp koo xam ne suñ borom dogal na eh, sa génn ba ñëw fii nekk di fi daan doole it eh, wéradi nga xam ne moo xew ci jamono ñun ñëpp nangu ne wér wér ne dogalu yàlla la ak natt la bu suñ borom teg ay jaamam ca sañ na ko eh, ku fi faatoo it wax dëgg yàlla boo sañoon ak koo mën a doon ndax ñun ñëpp sikku natt xam nañ ne ku ci faato ci mbas sayit la waaye nag Mm. ku sañoon itam ñu denc la ca fa nga xam ne fa nga taamu dénkaane woon ko bëgg ñu denc la fa rawatina mm. ñu ñi nga xam ne ñu am Tuuba muy suuf su tedd mm. muy barab yoo xam ne itam saa su nekk kilifa yi dañ fay dugg di ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoo fa tëdd say mbokk it buñ fa rombe seen xel nekk ci ñoom ñu dolli la ñaan du caagi ne danoo ragal ci suñuy suñu mbiri bopp waaye nag kenn ku ci nekk am loo xam ne moo la dàqal da nga am loo xam ne moo la gënal da nga am loo xam ne moo gën a dal sam xel kon li nga xam ne moo nu dàqal te gënal nu te gën a dal sunum xel mooy nu ku fi wàccub liggéey nu yóbbu ko Touba. ki ñi nga xam ne waa Touba lañ ca jàpp naa ne ñeneen ñi ñi ca desit la leen gënal mooy yóbbu leen ci seen i bokk yóbbu leen ci fa nga xam ne fa lañ yaakaar. dëgg la dëgg la. su ne nag yi bi ñuy def lii li nga xam ne moo waroon a jiitu dañ koo defut ndax ay nit itam luñ mën a doon nga bañ leen di jàpp ay xar waaye boo demee ba nga xam ne yaa ngi jël misir ci ñoom ak lu mën a doon nga waxtaane ko ak ñoom loola da rafet lool te gën Mm-hmm. waaye bu fekkee dem nga ba wutal leen ab ministre defal leen nangam nangam yëpp. Mm-hmm. waaye doo waxtaan ak ñoom it kon lool loola nga def yëpp day fa mel ne ay finte la waaye amul njariñ. Mm-hmm. yaakaar naa ne ministre bii nga xam ne moom lañ féetale bitim réew ñi ko xam ci ñun bëriwut ñi xam ak kanamam bëriwut ñi mas a jëflanteel bëriwut. dëgg la ñi nga xam ne ñoo fi nekk itam di nekka leen fii it. wax yàlla te nekk gi yëpp te jafe jafe yi bari na. Hmm. ba lépp li nga xam ne mooy xew ci ñi nga xam ne ñoo fi wàññiku ñun ñoo koy eh, dajale suñu bopp. Hmm. di dajale suñuy eh, dërëm ak suñuy ñaar dërëm. di fexe ba eh, ku fi faatoo ñu yóbbu la kon ñoom loolu jàpp naa ne ñëpp xam nañ ne kenn mësuñ cee defal dara. Hmm. leneen li ci des itam muy kees yi nga xam ne moom lañ fiy defar da jàpp naa ne ñun ñii li ëpp ci ñun am nañ ci expérience boo xam ne. ndax bu fekkee ñi nga xam ne dañ fe faatoo ca faatawuñ ci mbas mi. Uh, am na piqûre yoo xam ne ñun dañ ko daan sàkku ñu di ñu ko piqûral néew bi buñ ko ko piqûree mën na am juróom benn weer yoo xam ne dara du ci sikk Sénégal buñu hmm. eggee bu leen neexee mën nañoo ubbi keesu dénk yi mën nañoo hmm. ubbi keesu seng gi ci biir def ca lu leen ci sopp bu leen neexee bu fekkente ne waajal bi nga xam ne waajal nañ ko fi teyit ñu bàyyi xel ne ay julit ay taalibe ay bokk waajal biñ koy waajal fii ñoom ñoo koy waajal saa su nekk loo xam ne war nañ ko caa def hmm. képp kuñ ciy wax ne la waajal nañ néew bi fii ba noppi indi ko Sénégal jëratul def dara waaye nag bu fekkente ne doy la wuñ loola ba bëgg ko waajalaalit mm-hmm. waajalaat bu fekkee ku faatawut ci mbas mi la mën nañ ko bu leen bu fekkee ka ko doon waajal pikir boobu sàkkoo na ko ndax pikir boobu du caagi ne hôpital bi ñoo koy def waaye pompe funèbre bi nga xam ne moom ngay waxal yow yaa ko koy waxaale ne ko soxla nga ko boo ko waxaalee mm-hmm. ca njëgga mu defaale ko ca bu la ko pikir la juróom benn weer yi moo ku faatu tey ñooy yem lu mu mm-hmm. yàgg-yàgg dara du dara du ca soppiku Mm-hmm. bokkee ñii nga xam ne dañoo faatoo mbas mi itam nga xam ne bokkee nag Sénégal dañoo ragal ne bu ñu demee danañ fa yóbbuwaale jàngoro ji. Mm-hmm. man jàpp na ne kenn dofut ci ñu ne fii waaye ña du ñuy dof du ñuy jaaxil itam. bu mm-hmm. ñu wax ne kii ci la faatoo. jàpp ma ne danañ ubbi keesu dénk ga mënees na ko ubbi bañ ko sulale ndax kes gale moom boo jëlul jeesi xotti ko mënoo ko ubbi. dañ koo riibi. kon mën nañoo jël kees seng gu ndaw googee nga a yomba amal amal kër suulaale ko ak moom. waaye li ma la kees Sénégal boobu ko boobu ñu ko moom la ñuy suulaale beneen bi def itam am nañu faatoo Sénégal ci mbas mi. ñi leen jël encadré leen leen ba suul leen ana ñooña. ñooña bu bu néew bitim réew bu ñëwee ñoom nañ ko encadré yóbbu ko gunge ay bokkam bañ suul ko. loolu daal sëñ bi lu waaye mën a waxee waxee picc la waaye ñun nañ ci ànd akuk dal nañ ci ànd teey eh, li ñu war a bind ñu bind ko ca teg ko ca ay article ci kayit yi ñuy bind ñu fexe ba gis naa ci ay kayit yu bari ci biir internet bi waaye kenn signé wu ko kayit wu ñu signé wut gouvernement da koy sànni ci poubelle ba du ko du ko toppatoo. Mm-hmm. Eh, ay eh, bu ko ay nit bindee tam dañ cey def seen i adresse def ci seen i tur def ci seen i numéro téléphone def ci seen lépp signé ko buñ ko signé itam adresse yi fañ bëgg mu egg fa dafa am ay façon yu yu bokkut. bu dee président de la république nga bëgg mu jot ko am na adresse boo xam ne boo ko defee moo koy jotal boppam directement. Mm-hmm. am na adresse boo xam ne boo ko defee boo ko defee président du du ko ubbil boppam ña ko jëkk jot sañ nañ ko ubbi bu leen neexee ñu jàllale ko bu leen neexee duñ ko jàllale. Mm-hmm. loolu lépp buñ ci waxtaanee yàlla mën nañoo dimbali bañ kii kilifa yi itam ñu wut délégation wut suñu addee yónnee fa. ay bokk saa su nekk lenn ci bokk yi ña nga Sénégal ñu demal ñu ci kilifa yi fi leen fii la toll ci ñun. bu boobaa mm-hmm. ñoom itam lañ incha allahu dinañ ko ci def maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di sant sëñ Mahmadan baax ci taxawaay bu rafet bi la ñaanal fan wu gudd ak wér ak wërsëg njaboot gu barkeel islam bari njëriñ di ko ñaanal sëñ Modou Mbaye Thiam mi nga xam ne mooy taxaw liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. amiin amiin amiin barakalaa kon mën nga ñoo tëjal su ko defee ñu tëj jotaay bi ndax agsi nañ ci waxtu wi jël nañ ci lu bari bari sax tey jii mu mel kon foofu rek la ñuy tëjee ah, li li nga xamante ne daal mënees na koo fexe nañ fexe ba sëriñ Mamoor na ci jot sëriñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir sëriñ Isaaxa Mbàkke mi nga xamante ne sëñ Muntaxa moom la yebal ci diaspora bi sëriñ Aboum sëñ Fàllu ñooñu nga xamante ne ay kilifa yu mag lañ nañ fexe ba def ay ay moyens yuñ mën di def ba ñoom it ñi ngi dégg te xam nañ li xew ci ak ñoom it su jaree àgg ba ci sëriñ Muntaxa ñu àgg ba ci sëriñ Muntaxa ñu wax ko waaye lii moom amul benn doomu sénégalais boo xamante ne da nga ko nangu euh, ñuy jël seen njaboot yi di leen bàyyi ci àll bi fenn fu nekk ñu di ko suul teñ mën am ay matuwaay adduna bi léegi matuwaay yëpp am na su fekkonte ne jamono yi ay matuwaay amul sax nga xam ne amul sareet boo ko mën a dugal mu dawee itali ba ak si fi nga mën a wax léegi néew bi fu mu mën di faatoo moom mu faatoo Sénégal ñooy mënees ne ko indi Sénégal mënees na ko fee denc noonu ko sëñ Bass waxee lu am solo la loo xamante ne ñun xam nañ ko néew yi fii nit ñi sax kenn dajjatu am ñëw léegi parce que xam nañ ne Sénégal xam nañ ne léegi diaspora bi léegi organisé nañ soo demee ni ko ni ñu koy defee Sénégal noonu lañ ko fa defee dañuy sang sang defal laj ko lañ defal yañ ko war a defal yépp te ña la ko fa defal say bokk fa ne kenn ku nekk nekkandoo nga fa ak say bokk te léegi kenn ragalatu kenn ku nekk yaa ko defal sa bopp ña fa nekk kon état bi nanu bàyyi seen loxo te xam ne lii moom kenn mënu cee d'accord ku ci amati sa ku faatu ñu andi ko Sénégal say bokk di ko gis man damaa jëlale ay affaire ay affaire daanukat yooyu dama koy wax foo man di nekk ak yàlla dana la indi fa nga naan yooyu dama ko jëlale man dama waxul loolu xam nga nit ki faatu dafa am ay droit ay droit am nañ ko ko jox ba mu jeex tàkk ay droit am lan mooy ay droit mooy ñu yóbbul ko ko ci ay mbokkam ñu suul ko dégg nga catholique bi bu faatoo nañ ko indi fii Sénégal yóbbu ko ci armée li catholique am ko ko fa bi bu faatoo nañ ko indi fii ci Sénégal ci armée li jullitam ñu yóbbu ko fay mbokkam nekk ñu suul ko kenn ku nekk da nga am kenn ku nekk nañ la jox say àq buñ xañ nit ñi seeni àq parce que armeel yi foofu dëgg la armeel yi foofu tey ñun bokkuñoo ñoom ay façon sénégalais yi nekk foofu duñ dem ci ay armeel nañ waxante dëgg parce que ma nekk naa fa xam naa la fa xaw sénégalais yi fa nekk foofu baaxoowuñ dem ci ay armeel luñ fa dem parce que seen i njaboot daawu fa nekk daawuñu ci dem te ñooñu bokk ñoom ñoom ay diine bokk ñoom ñoom ay diine espace lañ ci daggal boo xam ne dañ ko fay dagg wut fa ab buntu boo xam ne dafa mën a dem mais bokk ñoom ay ñoom diine fa dem kon ñi faatu nañ leen jël indi leen Sénégal ñu denc leen fi loolu ci la ñëpp d'accord ñun nag amuñu doole amuñu dara kàddu lan man ak kilifa yi mën a dem luñ ci man danañ ci def suñ naa kàttan kilifa guñ ci war a dem danañ ca dem kilifa guñ ci munta dem te mën laa jot téléphone danañ la jot téléphone kuñ ci munta jot téléphone te mën a yónnee ci ndaw danañ yónnee ci ndaw fexe ba nga jot ci lii xam le ne loi bi wërta mën a nekk loi boo xamante ne loi buy jàll la nañ ko daal di dindi ci tàng-tàng bi nañ ko dindi parce que baaxul te it buñ ko dindi kepp yam ci mais na am contrat bu continuer boo xamante ne sunu njaboot ya fa nekk tañ jot leen fa suul bu épidémie bi jàllee nañ leen solli andil leen seeni mbokk jox leen ko ñu suul leen nañ leen andi seeni mbokk jox leen ko ñu suul leen xam naa liñ jël ci waxtu bari na ñoo ngi jéggulu waaye daal fi ñuy tëjee fenn rek la mooy association yi nekk Sénégal yépp yi nekk Sénégal yépp association yépp njiiti daayira yépp waxuma daayira murit dayre yépp laa wax bu tiijaan bu laayeen bu xaadir daayira ya fa nekk yépp ku ci dégg sama kàddu gi nañ fasu jëwrin ya nañ wut ñu leen booleel ñu yëkkati seeni kàddu ba ñépp dégg leen ba ñëpp dégg lañ nañ bind yónnee ambassade nañ bind yónnee Sénégal nañ bind yónnee kilifa yi nañ jël ñi nekk fii ñun ñi ñëpp tey bu ñu ci amee kàddu juboo ceeb ñu bari mën nañoo jël suñuy kàddu dem ci kilifa yi waxal leen ci seeni tur ñu fexe ba luwaa bii na dañ parce que baaxul suñu doom yooyu doon deewoo lu ne ñu daj ko ba faatu ci àll bi nañ ñu leen indil parce que loolu lañ ca dese ñun su ko defee ñu tiim leen ñaanal leen suul leen bu bisu feet amee bu ay ñaan amee buñ amatee beneen néew buñ fay faat ñu boole leen ci fukki si ak benn ya ñuy ñaanal néew yi jiitu woon nan ñu ko dimbale état bi lii mu def baaxul d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg danañ ko jéem a xeex fu mu mën na député yi nga xamante ne ñoom ñoo jot a nekk ci diaspora bi te xam leen fi ñun danañ jéem a jokkoo ak ñoom sénégalais yi nekk danañ jéem a jokkoo ak ñoom kilifa diine yi fi nekk danañ jéem a jokkoo ak ñoom ku mel ni sëñ Mamour ñoom ku mel ni sëñ Moustapha ñoom ku mel a sax ba àgg fa wax leen ko ne leen nañ ci wax parce que loi bi baaxul te nañ ko dindi parce que ñoom yeyoowuñ ñu jël leen di leen suul foofee nañ leen indi ci seen bokk yi fi ñu suul leen fa ndax amul luy wàlle amul luy lore amul luy gaañe amul dara kon ginnaaw jël nañ ci waxtu wi lu baree bari foofu la ñuy tëjee ak seen mbokkum taalibe Mahmoudan Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang ci seen émission bi di Almajlis Zoura di am dimanche bu jot bu ñetti waxtu ak jotee di tëjee ñaan gi ñu doon ñaanee rek bi épidémie bi amee ba léegi ñaan suñu borom mu saafaraal ñu lépp ubbil ñu boppi lépp ba erreur yi nga xam ne moom la état bi def njuumte yi fi nekk nit ñi di ko def njuumte yëpp jeex tàkk nit ñi mën a dellu ci seen sago te dellu ci lañ nekkoon bismillahi rahmaani rahimi allahuma inna sunubi azumat wa jallat wa anta sayyidi wa ilaahi ahsamu wa ajalu allahuma ahinni ala ridaka li urdiyaka xatta tarda bi awlika wa xuwatika ya arxama arrahimin wa ya kabiru ya mutaali wa ya sal jalaali wal ikraami allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wa addim alayna niham wasrif ana niqam wa rijsa wal azaba wal alama innaka anta al ahsu al akramu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu وقلبك على سادات الأموات تبكي الأنادي عليهم كالسماوات وقلبك على